di ñaar fukk fan ak juroom ñent ci Chaabaan atum junni ak ñeenti témer ak ñeent fukk ak ñett ñi waxon len ni wër wi danañ ko saytu wëru koor wi ci biir Sénégal ak réew yi nga xamni ne ñoo wër Sénégal yalla dimbali nañu fexé won nañ ba am ñoo xamni ci biir réew mi ci gox goxal yi nga xamni bu ñuy mën nañ leen téléphoné laaj leen ak ñi nga xamni ci si réew yi nga xamni si ñoo ñu wër euh, yooyu xabaar yépp nag bañ ko dajalee yàlla def xabaar yi ñu jot amagul te am na yeneen yuy wàcc maanaam message yaa ngi wàcc waaye dañ ni buñ bëggee xaar ba message yëpp wàcc day guddi ñuy wax ni nag ci lu wér weeri feeñ na fii ci biir Sénégal feeñ na ci biir Sénégal euh, feeñ na ci euh, yëmbal ku ñu wax Mansour Ba oustaz Mansour Ba moo wax ni weer wi gis na ko gis-gis bu wóor woo nañ ko téléphone ba confirmer ni dafa confirmer ne ni gis na weer wi dem na bay wax sax nam ko gisee ni xool na ko lu man ñetti yoon tuumaal bëtam toxoñu xoolaat ba mujj sax muy wax ni man kat lislaam teguma lii eh, kon nag gis na weer wi seedaloo na ko ay nit eh, fii ci mbaxana gii ci wetu ndar am na ku ñu wax monsieur jóob Birahim Diop di ab jàngalekat moom xamuñu ko waaye xam nañ ay collègue yoo xam ne si xam nañ ko ci wér ñi wax ni kooku ma nga dëkk dëkk bu ñu wax wexee di jàngalee mbaxana moom nee nañ weer mi nga dëkk euh, mbaxana di jàngalee euh, wexe wexe lay jàngalee mais mbaxana la dëkk mbaxana gëm dëkk nag foofu la ñuy gisee weer ci gis-gis yu wéer ci biir Sénégal euh, ba tey ci biir Sénégal daanaka ci biir Sénégal daanaka laay wax weer wi feeñ na ca Gàmbi Gàmbi gi nga xam ni boo doon def boo doon dem Casamance ga nga xam ne bu fa weer wi feeñoon dañ naan feeñ na Sénégal Gàmbi weer wi feeñ na fa gis-gis bu leer nañ commission ba gis nañ ko wax nañ ña ko gis wax seen numéro téléphone di lim nañ dëkk yi ba am ay dëkk yoo xam ne si dañ ni waaye ña ko gis moo tax mënuñoo lim weer yi feeñ na ca Guinée wax nañ ni gis nañ fa weer wi weer yi feeñ na ca Mali mbooloo wax nañ ni gis nañ ko weer yi feeñ na ca euh, Côte d'Ivoire mbooloo wax nañ ni gis nañu gis nañu weer wi bu ñu dajalee xabaar yooyu nag dafay doy sëkk ñu sukkandiku ni suba incha allahu samedi ñaari fan ci mois d' avril mooy bis bi jëkk ci weeru kooru atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñett comme ni nga xam ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam santaane woon ni suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi na ngeen woor ci gis-gis woori ci gis-gis ñi woor suba nag la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni yow sawmu yawma tasumuun as-sawmu yawma tasumun ñooñe yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañ bisu nee na leen bisu koor daal mooy bis bi ngeen woor yéen mooy ñan mooy ñi nga xam ni woor nañ ci gis-gis gis nañ ko ci fii ci biir réew mi gis ko ci réew yi ñu wër ba incha allah kon ñi ngi koy yëgal bokk yépp ni suba samedi 2 avril 2022 mooy bis bu jëkk ci weeru kooru atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett